mu daldi woo sëriñ bi boole sàmba buru jolof mu daldi ànd ak bamba nee na keroog ba mu xëyee ilaa safar yàlla nga ko boole ak Mustafa gaxlul badar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 lay jàng fil qur'aani alal hudaa ba jàggi noone daane inna walilaahu laa jaw la daam fanaane ba ja saaliina jaw ayaasamini laa waxinda jeewali ibliis ee na day toobi awali ba mu xee ba sandamal waa kokki sandra may rambal tubaabey fonki la bax sëriñ bay géey maamur faal laa yàlla saar lon faal jaala xaytumu la siina kafaro wii leen bu dellu gannaaw fal tasbiro nee na keroog ngele doon rambal jibril ko gam ba mam la àndal kaanoo ca burdu fardu moo doon fa si bambaay fardu nee keroog ba mi ñaane kokki ba yendu lugo si lu waa Mbàkke bur yàlla xaatibante naag moom laaya jaala xaytumu fi atani gaaya keroog la yandu lu gëréew mi naa ko te nga jiyaar mu naa banaa ko yàlla na laawu tegi daafiyu ina la si naa manoo ngir saabiyu fa la julee keroog salaatu asri inda sabina toobi xayri usi bem selmale tabbi gaal ga jëm ndar di samandaab jam si mbaa weeru badar gaal ga di daw masin bi ibar di sabba subaanoo bambay boroomi laxwaal شمعان من في البير والبير معا الجارية وكلا جمعا شبعان من لجار بالشفينة في خدمة لشاب المدينة شبعان من يورج في النار على الإسرار في اللجير كرك بزيق كرك لسيق بامبا فراندا جيج دوزيج الآن يجب دنم بامبا جيج إلى نبي وجهت قبل فندري ما قد كفاني الأداء كالكدري نانا كرك بميني وبرام دار لك برامم دالي وحلمي نار فاصبر كما صبر أولو اسمي لا يبقى بنت بامباي برمي mu daal di jaari karamat Quraysin ngir li mu càllaloo ci ñun Quraysin Seex Bamba jil na fa ñaaka jaan dafa xëyil waraaj wal makka keroog la teelib xasideg asiiru ca Muhammad la am Sëriñ Basiiru keroog ba muy taalif banaa xurooru ndawal borom ndar woo ko mi muuru yandang yarangi naa ko ñaanal dappel borom ndarob gan am na moo appal xani laa ani ler wa bi muhammadu hani les baabe bambax yandang ba wax ka duudu antal paret bi mooy borom tawit keroog la bambaram mu duudu sekk mu ki aay waajuram yi bul ko sikk na fandaar wee dige aw gàmmo bu mu xëyee daldi xëy demoo ñu daldi koy jarax mu dem ndakaaru caal xame jëlan doole waaru bisib keroog la la jëkk a feeñal xar njaay maa beey loolu cem taax wan ke xasiru ne ko yaa seere damay liggéey lii ma del si jéeri yomal xiyaam may ramu ahlu barri moo tax damay ramu jaalul baari te feeg may dellu si doo fi faatu danaa la fekkaat ndar li ay aatu bisub keroog lañ ko dugal gaal jéeri mu jëm Dakaaru bambana mu jiiri allamani rahmaani bi sabina bi anani qadimu sil madina filaytul jumaati lañ ko tabal ci neeg bu lëndam noonu naa ko lambal mu làmb doj ay gabar ak ay rabbu ñu tëj ko dem mu des foobeeg rabbu mu daal di jublu xebla daal di kabar nee keroog mun te si joon ngir tartar jàng ba saar baqara imraani jibril ti gineeg wel quraane am na ba yaari guddi moo ngi nii caddi caddi nag mooy fi nga xam ne fii la ñuy daje saa su ne xéewlu ndax daanaka lu ñu doxati rek ci kanam tuuti day dem guddi waaye muy caravane boo xam ni mu yaa ngi fi yëg sëñ tubaab bu baax a baax buñ doxee tuuti di nga gis ndox muy xel nit ñi di ci xéewlu di ko barkeeloo loolu nag li tax mooy dëkk bi yëpp buñ ko fàttewut kenn képp tax noo ngi ci barab boo xam ni noo ngi ci barab boo xam ni ahlu badrin kiram miin na ko ndax kenn lañ fi daan fekk kooku nag mooy Cheikh Ahmad Bamba euh, jërëjëfati euh, ba tey noo ngi ci euh, taxawak ak sëñ Xaasim nga xam ni mooy ron séjour yeeg nanga ak yooyu sëñ Xaasim caravane bi ana noo ko gisee ren ci yokkute. waaye noo ko gisee tey ci murid yi pas-pas bi ñu am ci Sëñ Tuubaa nga xam ne koo gis mi ngi jooy ñuy ñoo lekk taluñoo naan mu mel ni ñi ngi dund Serigne tubaa di ko liggéeyal ak désintéressement noo ko gis waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu Serigne maa Mor Mbaye ñu ngi lay nuyu te di la ziare di nuyu waa Tawfekh Production di nuyu aussi waa Touba TV di nuyu mboolem àdduna bi yëpp di wax ne comme ni ko murid yi dundee rek maanaam mbégte coono beeg maanaam ak Euh, liggéey bi lépp li muy rëy rëy rëy ak li muy metti metti sañuñu ko yëg sax laay wax ak cant lay doon ndax euh, buñ xoolee ki fi jaaroon rek ak ni ñu fi jaare woon rek maanaam dañuy daal di woyof toy ci ñun kon dañuy ñaan rek borom bi subhanahu wa la mu may ñu ak yeggale ñi ñi ñu waxee ni ñi ngi ci lak caat bu bi gisee mooy barab bi nga xam ne garab yi xeer bi nga xam ne fa la ndox ma nekk di wàcc ñaari fi dañuy escalé noppalu tuuti xewlu julli mën a mën a yeggaat waaye ren daal wax dëgg yàlla euh, karawaan bi kawe na njort ndax gis nañ communication bi ci am wax dëgg yàlla waa ñoom sëñ Moutala bi ñoom sëñ Xaadim def ci ak yéen ñi ak ñoom soxna euh, soxna Nabu soxna Seydou mu njégéen ak wax dëgg yàlla jéego yi ñoom Baye Cheikh Mbeng sëñ Kàllam ñang dox sëñ Seexuna nga xam ne kilifa yi wax dëgg yàlla taxaw ci njabootu sëñ Touba gépp ndax da ngay yëkkati ci ay kàddu mu doon loo xamante ne bii mayaat na ko aw dayoo woo xamante ne bii wax dëgg yàlla kawe na suñu njort ndax ku daan yee quatre bis dan daan am yenn saa wala trois bis ren six bis yu mag ak ñaari bis yoo xam ne jiitu jënan ak itam beneen oto boo xamante ne bii dafa jiitu muy góor yàlla yi dem toppatoo liggéey kon wax dëgg yàlla lu ñu daan am rek am nañ lu faw ko tey jii waaw wax dëgg yàlla yéen itam ñu ngi leen di sant baax yoonu géej gi. dama ko ñëpp ñaanalal te it nañ ñoom ñii moom sëñ Baddo euh, sëñ Kàllaam Ñang euh, Cheikh Mbeng kenn ku ci nekk coono boo xamante ne vraiment bëgg murit bu fi ñëw rek sa xol sedd guyu rawatina nun waa presse mu taxawu na kon euh, suñu xaasim jërëjëf sa kàddu yu mujj. waaw kàddu yu mujj daal mooy di ñaan borom bi subhanahu wa taala nii ñu àndandoo. ñëpp xol yëpp li ci nekk rek mooy xeñ ci mbirum sëñ Tuubaa suñu borom yeggale ko ba ñu yegg ci jàmm siyaare ci jàmm lañ fa war a def lépp ñu def ko fi muy njàngum alquran ma njàngum xasida ma ak itam waxtaan wi nga xam ne sëñ Ahmadou Mbacke moom lañ àndal ak Baye Dame Mbaye gis na li nga xamante ne moom lañ tàmbalee ci ci ci ci ca Libreville suñu suñu kilifa gi nga xam ne moom la ñu àndal itam muy eh, sëriñ Bassirou Mbacke moom sëñ sëñ Mountakha nga xam ne sëriñ bi yabal ko moom itam ñi ngi koy ñi ngi koy sant bu baax a baax ak sa ak sa sëñ see Xaddim Fall moom itam jox na bis bi dayoo woo xamante ni wax dëgg yàlla lu kawe njort la kon daal sëñ Mamor ñoo xam naa li des dañ koy dagg rek ba ba dem ba ñëw waaw waaw demee ba ñëw foog ma xoolaat affaire yi ñaata waaw bu ñaata ñu dugg waaw yooyu yëpp nga préparé ma ko ñaata axe démb ñaata aksi bu yoonu njëkk wa loolu yëpp nga préparé ma ko bu déwénee ñaata ñoo war a ñëw ak fan la ñuy jaar ñi koy seetaan bëgg a ñëw ci affaire bi te xamuñu fu ñuy jaar loolu moom foog nga préparé ma ko bu ñu àggee maa yomb incha allah. incha allah bu ñu àggee rek dinañ ci ñëwaat. jërëjëf Serigne Xassim euh, sëñ Fallou ngi nii waaw ah, sëñ Fallou. sëñ sëñ Touba kenn du. man man bëgg gi daa gën a yokkaat te bala maa wax dara damay ñaanal sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg loolu tànn mbir tey ñaanal bépp murit boo xamante ni da ngaa bëgg sëñ Touba yàlla na suñu borom defal tawféex ba nga ñëw fii boo ñëwee Gabon di nga gën a di nga gën a xam ne sëñ Touba amut morom man sëñ Touba dama dama dama ko misaal ci sama xalaat bopp dama ne bu ma ko bëggoon benn fi ne bëgg naa ko téeméer ngir maanaam maanaam sama sama ñëw fii moom daa gën damaa gën a daggewaat dañuy ñaanal bépp bépp bépp murit boo xamante ni bëgg nga sëñ Touba rek suñu borom defal la tawféex ba nga mën a ñëw fii siyaar si ñëw visiter Gabon di nga gën a bëggaat sëñ te di nga gën a joxaat war ma xasida yi ndax ay coono rek la ko la ko doon bindee ngir jëmmi Seydina Muhammad wallaahi lazim. Eh, jërëjëf loo may may ci nobul bu engagé. nobul bu engagé ba xeex ca guerre ba nduroowul ak civil keroog payoor ba. nobul sëñ Fallou ñoo ngi taxaw ci sa ginnaaw jublu la wan ñeneen gannaaw sëñ Fallou foo mën a jëm yóbbaale noo yàlla ak sa barke ñoo la gëm. noo ngi lay siyaar. sëñ Jili Fall moom sëñ Modou Ablaye moom sëñ Ablaye Fall ndar moom maam Cheikh Ibrahima Fall. gungeer euh, magam sëñ Cheikh Khadim sëñ Jili lan nga yëg àll bi nga roon. waaw santaat yàlla bu baax rek xam santaat suñu jàmbaar sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul di xam ne fi ñu romb bari na lool waaye fi ñu romb lépp fenn fenn fu ñu ko bàyyi woon rek ëppoon na waxuma waxuma dox sax na fii xam ne fii ñu ko indi woon sori woon na lool xawat na téeméer ci ginnaaw fii xam ne meloon dogal mu dem di si waat ci jàmm loolu dañ sant yàlla bu baax ndax yombut fii moom kuñ fi indi woon dañ naan ñu fee nañ ko dañ waaye moom rek dañ fi yóbbu mu waat xam nag alhamdulilah. sa waajo de dañ ko doon wax naan li lépp yow. waaw Cheikh Ibra Fall loolu lañ ko ndax booba jëloon na jëloon na Serigne Touba teg ko fu kenn tegul waaye dafa waxoon ne Cheikh Ibra Fall daa xool fa ma yàlla tamit teg ma loolu Serigne Touba ko wax boppam waaye loolu waat waxaat ne Cheikh Cheikh Cheikh Ibra Fall daa waxoon ne bañ ko ñëpp nag li lépp yow dama lii aw xas la. waaye ëllëg aw tagg kon xamoon na ne jàmbaaram ji dana dem dana dellusi te bu ñëwee ñëpp am ndam asalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf sëñ maam moom sëriñ maam Cheikh euh, Mbodj moom sëñ Moodu Mbodj euh, di sëtub euh, di di koo xam ne maam maam ma njëkk jox seex Ibrahima Fall oto waaye nag di bokk ci kër sëñ Mortala Fall ci côté wuy juróom wu jigéen sëñ maam Cheikh yoon wi ñu dem muy maa yomba ak li ñu jotu dugg ndax koo bëgg ci moom noflaay bi nga ko fi indi ak lan nga ma jàngatal ci li waaw xam naa nun de moom dañuy sant si ndax xam na ni suñ jàmbaar ja di Serigne Touba am na large victoire ci noonu lislaam am na victoire bu rëy ci noonu lislaam kon nun dañuy sant si waaye nag li lay xamal ni am na ko am na ndam mooy suñu jug yi nu jug mat ñeenti téeméeri nit tey jëm fu mu nekkoon di santi ak a ñaani ak a fàttaliku moo lay xam ne sëñ Touba ndamam rëy na ci noonu lislaam fu mu dem ndam la fa am na amul fenn fu mu dem te doonu ndamul lislaam doonu ndamul taalibe yi kon fépp war nañoo fexe ba yaatal ko ñëpp yëg ko ñu jug di ca dem di siyaare di ñaan di sant ndax la rek a fi des mool xam naa biñ fi daree jaar léegi mu xaw a yàgg ndax xam naa fanweeri at ak benn ci ren 95 ba 2000 xam naa 24 ñu koy jaar fii di topp jaar-jaari sëñ Touba jaar-jaari sëñ Touba nag boo koy topp yaakaar naa dina ci am étape yoo xam da nga koy tëb ndax am na ay barab yoo xam ne sëñ bi jaaroon na ci yoo xam tey jii barab yooyu sottetul ngir nit man caa jaar ndax kenn ku ne xam ne ni yoon wi jamono jëf sëñ Touba di nekk en 1895 yoon wi amu fi woon ndax Mayumba gee ñu jëm booba jamono dara likkalewu ko ak Gabon waaye Mayumba booba. moom mi ngi dépendre ci Luango gi nga xam ne mooy actuel Pointe Noire Brazzaville coiffé ko nga xam ne jooje jamono yoon wi nu jaar ab foore la boo xam ni maanaam maanaam ca jooje jamono jamono ji sëñ Touba di jaar waaw bi jamono ji sëñ bi di jaar booba jaarul fi ndax booba jamono fii ab foore la te dëkk ba ñu jëm muy Mayumba booba ci Congo la nga xam ni Brazzaville ci boppam maanaam boo xamee ni bëggoon nañoo déplacer dara. dañuy ñëw ci dëkk bi ñu naan Luango nga xam ne moom mooy Pointe Noire euh, di ravitailler lépp loo xam ne boobu jamono Mayumba soxla na ko waaye sëñ bi nag moom bi muy ñëw kenn ku ne xam na ne bu fekkee dégg nga li sëñ Moussa naan Kabla-Bissa moom mooy Kabla-Pes mooy deuxième capitale économique Gabon bi nga xam ni moom ab île bu nekk fi ñu naan ko Port-Gentil la sëñ bi jaare woon moom di ko jaarale ci ay gaalu géej di ko joow ci ndox yi wuute ndax kenn ku ne xam ne sëñ bi bi muy jógee Libreville ñi ngi ko joow ci ndox moo xam ni ma nga taqalu ji ak géej ga ca ginnaaw fu ñuy wax Point Denis Point Denis ku ñuy wax Denis Denis Rapo Combo moom ba tey ji ay askanama fa ne mu mel ni moom boo boo toogee Libreville di jàkkaar moom waaye ca ginnaawam nag xaw a féete ci wetu càmmoñ foofee la li ñuy wax île de perroquet nga xam ne moom la sëñ Moussa Kanaan île de ki bari xelam lool njuuma yaa ngay cuur ki noonu la sëñ Tuubaa wéyee nag euh, jaari Port-Gentil Cabo-Lobissa nag foofee nag la Océan Atlantique bi jaar fa la sëñ bi jaare nag ak gaal ñu di ko joow ba ag ji ndox mi nga xam ne moo nekk Mayomba ñu naan ko fleuve Bagno le Bagno boobu fi mu taqaloo ak géej gi nag boo demee embouchure baa nga fa embouchure boobu nag nga xam moom lañ naan bël ba bu doon ci ndar foofee la sëñ bi gaal gi wàcce wàccee géej gi nag dugg ci dex gi boo demee ba ca mission catholique boobee nga xam ne dinaa koy faral di wax at mi ñu fondee Touba rek muy 1888 l'abbé yi ñu ngi ñëwoon ñu ngi ñëwoon euh, Mayumba 1883 lañ fa njëkk a ñëw waaye ci 1888 nag maanaam la ñu fondé mission catholique boobu nga xam moom moo tudd Saint Saint Sainte Odile fu barab boobee nag dafa xaw a mel ni soo koy seet day mel ni fu ñu waajal ngir sëñ bi ndax liñ bëggoon ci sëñ bi wala li señ bi bëggoon ci boppam foofee dong la mën a amee mooy foo xam ni mën nañ faa téye sëñ mu nekk fa juróomi at yoo xam ni waa Sénégal ñoom kenn du xam ci moom jàppoon nañ ni tamit séquestration lay doon mooy tëj ko ci barab boo xam ni du mën a doxe ay yitteem du mën a sottal dara waaye teewul nag loolee ñoom léeg-léeg sëñ bi réer leen ñu am ay jamono yu ñu dul xam ci moom dara su ko defee kon daal Mame Mor lii ñuy def li muy métti métti doon 819 kilomètres de Libreville à Mayumba maanaam maanaam doonul dara ci li sëñ bi rek waaw ndax sëñ bi moom ci gaali géej lañ ko doon lañ ko doon jox tam yàgg fi lool am fi juróom-ñaari at te ba mu fi ñëwit ay noonu ma ko fi indi amul woon kenn koo xam ni amoon na fenn foo xam ne am na sañ-sañu féete ko fa kenn mos a jóg nii luñ ma fayati ci sama weer man Bàmba laa ko jox muy Sidi Maba ci làmb na gi cekk nga dégg la sëñ Moussa Ka wax ci Josaaf keroog la keroog la duudu ma may mere Sidi Maba di ko fital far mooy Balbadal Baaw ba mooy secrétaire ba secrétaire boobu nag bi yàlla dogalee mu mu fital ko ci la ñu jëlee nag moom moom du du du du du mbay moom ci boppam tëj ko kaso folli ko maanaam moom si Sidi bo nag moom moo mujj remplacer secrétaire boobu ba ay askanam a ngi fii ci làmbar na yoo xam ne xam naa leen làmbar na gi la amee woon waaw jërëjëf jërëjëf sëñ wali garamal janma من خلا وساركنا للخل لي برما يرمى